salaamaaleykum mbooloo mi man la gaynde bu boucher est-ce que Tivaouane am na autorité man loolu laay laaj te dégg naa ñuy wax naan bétuwaar bi li ñuy wax ñaaw na ña naan bétuwaar bétuwaar bétuwaar fu ñuy rendeek ko fees amul politique fu ñuy rendee ko fees amul politique nañu bàyyi di politiquer bétuwaar bi bétuwaar du politique wu kuy politique da ngay dem ci biir dëkk ba nga xool li nga xamee ne xel ni moom la waa dëkk ba soxla bétuwaar bi di politique rendeek fees di amu fi politique na ñu koy bàyyi bétuwaar bii mooy quatrième bétuwaar Tivaouane ñu bàyyi di wax loo xamee ne xel ni dara amu ci di politiquer bétuwaar bi bétuwaar kenn di ko politiquer bii mooy quatrième bétuwaar Tivaouane bu ñu bëggee liggéey dañuy ñëw ci boucher yi ñu waxtaan ak ñoom laaj leen lan la ñuy def ñu jàngal leen wante maire amuñu politique est-ce que Tivaouane am na maire sax li may demander est-ce que am na maire. man gisuma maire man euh, li ma ci jaaxal mooy que Moustapha Niang laa fi gisoon ci maire Moustapha Niang laa fi gisoon ci maire à partir à part Moustapha Niang gisaatuma fi maire. boucher yi nag léegi léegi camion bii ngeen gis mu génnee fi boucher yi ñoo ko fay mu videl leen ko videl leen fosse bi abattoir bi mooy quatrième abattoir Tivaouane. abattoir bi metti na ba fu metti yam tilim na xeeñ na. ñun ñii di wax ak yow ba bu nawet bi gën a jub si tamit dañuy am problème parce que weñ yi day dugg suñu kër gi bari yére boo fi weer mu yàqu biir yi daw sonal nañu dégg nga kenn wératul ndax xeetu betuwaar gi ci feebar rek lañu dëkk waa ci feebar lañu dëkk ba tax na nag suñ ko mënoon a defar moom dinañu am li ñu gënal tiwaawul moom ku la ni betuwaar bi xeeñul rek bàyyi na loxoom xeeñ na ba nag ba fa xeeñ yam moom bétuwaar bi li ma ca naqari dafa bari ndax mënu noo nooyi man mi jaa fi mënu maa nooyi bu nawetee sax yi day ñëw ba jéggi tali bi fekk fii nu toog kenn du fi nooy ñii aw ci tali bii dem sax koo fi romb yaa ngi dar see bakkan ba karoog gi ñu de dund leen ndax yéen ñi mën a dund xet gii dund leen yéen de xet gii su xol leen ko leen jox feebar man kaa nu muy def comme suñu kër la ne te mun noo daw bàyyi ko ndax doog bétuwaar bee ba dëpp ñoo dëkkandoo konté mun no dem fenn tok fi rek di ko muñ ta xamné ne bu ko yalla jéxalé mu jéx babakar mi mo fi def le def ci di ko bare mooy koy raxas lu jaw ci daal ji moo mam fi def bu do la mom kon dina fi gëna metti sax wa ñun ñoo ngi sant yalla ñoo ngi sant babakar mi ci daal di nu ci daal ñun dal lu sonal bétuwaar bi dindil nu ko ba lu dégg digé ba légui yàgg na torop nam mënu no nelaw mënunoo nooy lu neex mënunoo togg mu dugg nu feebar rek la ñu yokk sunu xale yi fi dëkk moo nu gën a sonal sax xale yi kenn wératu nit ñi wératunu mën génn jaay mën noo def dara dañuy ñaan ci yàlla suñu borom yàlla dimbali ñu yéen denc di ko fi def fi leneen. li nuy li dund xamu leen ko ñun nag ñu fi nekk nag noo xam li nuy dund bàyyi leen naxa yi nag naxa yi moom dañ cee son naxay sonn nan ci torop torop torop at mu ne lii rek lan nuy wax sonn nan saa bu ngeen ñëwee nag xamu leen nuy dund waaye ñun nuy dund xam nan ko dimbalu leen nu ngir yàlla ak yonent bi tiyaawoon ba tiwaawoon daj dëkk yëpp defar nañ leen petuwaar bu baax waaye fii moom daa mel ni rek ñi fi dëkk nan dara te ku fi wut xam-xam fii nga koy wutee si kon bokk nan rus sëriñ si bokk ndax ku dara naqari da ngay ñëw ba jàpp ba set dem ca jumaa ji ñaan li nga soxla kon boog ngir yàlla bu ñu fi nekkee ñu taalibe seex war ngeen ñoo mën a defaral ba mu baax. waaw ñu ne si bétuwaay bi lañuy liggéeyee mais bétuwaay bi neex ma neex mais gis guñ suñu bopp ndax dëkk bi mu ngi mel ni maire amu fi ñun arrêt fi xet yi mu ñu rey sonal nañu trop fi toog feebar mën na ñu ngi koy am loolu la ñu ngi ko fay dund ñu seetle sax dañu obligé borom oto yi duñu mën a taxaw ndax xet gi ku fa jaar ko da ngay kaas tiaawal mu ngi mel ni seen maire bi amul fi njëriñ na am nañ ci métti trop waa kon mi nag laay waxal ñun ñëpp muy mën a keneen ak keneen métti nañu trop nag met nañ trop ñu ngi koy ñaxtu ñu ngi koy ñaxtu guddeeg bëccëg chaque jour sooy nekk di kaas vraiment bedwaar moom ñun ñu dëkkee fii moom ñu ngi siy dee moom ndax mënuñ jox feebar bu ne ñu ngi dëkkee fii ñun mënuñ jox feebar ndax duñ jóg hôpital maire war na si jàpp tabaski bu jotee yàpp boo ko tegee bala nga koo togg mu dooni sax nga togg ko say doom lekk ngay daw hôpital yi daw a ordonnance du jeex metti na ba ca kanamu yàlla na bu ngeen ko defaree war ngeen ko defar bu ngeen ko defar war ngeen ko def ndax ñun danoo yàgg a dox gis nañ dëkk yi ni mu mel ak virage ni mu mel ñun moom noo ci gën a bon ne di bétuwaar bi bi xet bi da baaxul xet bi dafa bon surtout xale yi loolu baaxul waaw xet bi chaque jour sax man mi sax ñu ñu bëri dañ may wax yéen yow danga mën a nooy xet bi man ko ah, looy def looy def kay moom dañu coo war a jàppale rek baax ñoo war a jàppale si bétuwaar bi waaw ah, man loolu loolu laa bëgg daal. ñun ci suñu bopp bala ngaa xëy suba bu layee rek doo nooyi si kër gi même pour nga toog ci ëtt bi sax problème la te loolu tamit danger la boo booy nooyi dangaa war a nooyi lu baax waaye nag ñoo ngi sant Babacar ndaxte bu demee tey ba set Babacar a tax bu ñu demee ba am xet gi sax ñu toog nii rek nooyi ko rek méttiwul Babacar la ñuy sant gërëm ko ndaxte moom tamit ku baax la bi ñu ko joxee bétuwaar bi ni ko defar ko mënoon na ko bañ a defar lépp Babacar la moo ñu si moo ñu dimbali tuuti ñu am li ñu am waaye nag bétuwaar bi moom bu ñu ko fi mënoon a jëlee rek mooy li ñu gënal wax dëgg yàlla bu dëgg dee dëgg rek nag ku la ni sonnuñul rek dafee dëkkul waaye ñi fi dëkk moom sonn nañu sonn na xet gi naqari na day ñëw ba ba ginnaaw raay ba sax ba ginnaaw raay ba bu tawee dootoo nooy yi bu tawee dootoo nooy yi bétuwaar bi maanaam dañ cee sonn sonn koo xam ne baa ñu cee mën a sonn sax du jouru gàmm gi sax mais avant gàmm gi maanaam ñun pour ñu mën a lekk sax dañu ma dañ dañuy obligé tëj suñu néegi dem ci naaj bi mën a lekk foofu coono boobu xam nga nag buñ sañoon nag ñu dimbali tamit buusa yi dimbali leen ci ndax ñoom bëgg na noo liggéey te amuñu fuy liggéey te salte bi am na ñoo xam ne sax maanaam pour teg seen tànk pour ñëw jën si wa yàpp duñ ko fa mën a jën ndax mënoo jën ci ay weñ bëgg koo jën ci ay mbalit te loolu lépp nag il faut que ñu maire bi jëm cee jàppale ci benn côté parce que fii nag vraiment waxuma dara yëpp da koy indiwaale dugal ko suñu biir kër ñun nag lenn moo man man moo ma jaaxal man man man gaynde lenn moom ma ci jaaxal mooy que bétuwaaru caali biir caali la nekkoon ñu toxal ko ci yoonu Thiès bi. bétuwaaru Tëngéej biir Tëngéej la nekkoon ñu toxal ko bétuwaaru Touba biir Touba la nekkoon ñu toxal ko bétuwaaru Mbakke biir Mbakke la nekkoon ñu toxal ko lan moo tax bétuwaaru Tiwaawan mënuñu ko defar comme ni ñu defaree bétuwaaru Tiwaawan loolu amul volaille moo fa am ak fi vétérinaire yi di dëkk. lolu amul nañ lay wax deug nañ bayyi di politiquer bétuwaar bétuwaar kenn diko ko politiquer bétuwaar kenn diko ko politiquer bo bëggé politique da ngay dem ci kër yi nga politique fa fi bétuwaar la dañ fi rendé ka fess amul politique fi du pour politique ku kaay puis da ngay wax deug mo gën ngay politiquer bétuwaar ñun bétuwaar xamuñu ko politique fu dret di nek xamuñu fu politique deug nga fay wax wala nga bayyi amul politique volaille moo fa ne te ku la wax ni la bétuwaar la ñu ñëw ñu ànd mu wan ma bétuwaar nu ñu koy tracé lan moo tax man lan moo ma jaaxal ndax lan moo tax budget Tiwaawan budget Tiwaawan lan moo tax abattoir Tiwaawan seen budget bi mu génnee mooy abattoir Thiès abattoir Tëngéej abattoir Thiadiaye abattoir Touba abattoir Mbacké abattoir Xombol ñoo bokk benn jour bu ñu leen génnee les budget lan moo tax abattoir Tiwaawan kenn génne budget maanaam nañu bàyyi di tabax volaille ne bétuwaar la ñu tabax déedéet volaille la ñu tabax fi ñu def nag. waaw waaw euh, xam nga ñoom bu ñu leen dee fay tax dem nañ ba defaruñu bétuwaar bi ku fi jaar doon yi lii ma lay wax nii wax naa ko li may wax nii duma ko nëbb. ma maas jaañ bi mu defee forom bi marché bu bees nee naa ko maas mu ne ah ma ne ko li ma lay wax du deñ ci betuwaar bi lay yendu man maa yore betuwaar bi ci betuwaar bi lay yendu da ngaa bëgg dégg lu ma lay wax ni amul nëbboo wax naa ko Alburax Dabaax FM moo desoon nanguwuñu ma yóbbu nanguwuñu nu woote bi ñu nekkee Dabaax abattoir bi dañ leen di fay juuti fii man mi wax ak yow maay rabaax moo doon dagg juuti. rabah jeng mo don juti juuti sama nijaay bi rabah feebaree ñu jox ma kayitu juuti kayitu juuti yaangi ni nii mun naa la ko won xat bu fi dugg da ngay fay nak bu fi dugg da ngay fay li juuti yi ñu don doon fay ñoom anañu nañ juti bobu nañ ñuko ko da parce que ay gamuy gamu ñi ngi fi jall nañ ma gennel juuti bobu juuti buñ ko génne woon war mun na defar bopom xam nga luñu wajal pour def ko moy que diñ ko récupérer pour suñu bop xam nga géew nga fi léegi nga gis fi camion citerne bu génn camion citerne sama mag moo ko fay ku ñuy wax Serigne Mor Mbaye fay camion citerne bi vidé mu salté bi di dem ndox mi fi ne du beneen foos ba la ci sa ginnaaw mënuñu ko vidé ndax parce que ay yax ak ay béjjén ak lu nekk ay saako ñoo ci ne mënuñu ko vidé ku bëgg abattoir abattoir da ngay abattoir bañ la jox nga ko nañu bàyyi di wax ne abattoir wéy abattoir pare na wuse pat déedéet boo woowee nit ñi te woowoo boucher yi amul njëriñ ña ngay woo dangay woo boucher yi ñu taxaw xool li nga leen di defaral ndax baax na walla déet waaw waaw li ma la wax bañ fa demee yow bu ma tax dinaa la wax benn kaddu dinaa la wax benn kàddu ba mu fi tawee maire fii la fanaan ba mu tawee dafa daw dem dakaar guddi googu ñun ñu ngi fi ba kër yi inondé di daanu dafa daw dem dakaar kon buñ ma wax ni ma maire man gëmuma maire xam nga lu may gëm ma liggéey la gëm ñun nit kuy liggéey la gëm gëmuñu maire. xam nga maire bu doon liggéey doomu dëkk bu doon liggéey day sol ay dallam mu ñëw xool lan moo nekk ci abattoir Tivaouane wante koo xamee ne xel ni xooloo lu nekk ci abattoir Tivaouane xooloo biir Tivaouane li fa nekk mënoo wax lu nit ñi dégg. xam nga li tax maire bi fi nekkoon bëgg na liggéey. miinul Tivaouane fi la juddoo fi la yaroo ku la koy wax ma wax la dégg bëgg na liggéey. El Hadj Malick Diop bëgg na liggéey dafa xamul Tiwaawan ndax parce que ña mu àndaloon ñoo ñoo ko doon nax waxuñu ko dëgg bi wanuñu ko yoon ba dañ ko doon nëbb yoon bi El Hadj Malick Diop bëgg na liggéey ndax parce que man mii wax ak yow toog naa moom ma wax ko mu ne ma carrément li nga wax am na bu guddi la fi ñëw maak moo ma ànd gars yi xamuñu woon ni maak moom ma ànd yorul sax otoom beneen oto la ñuy jël. El Hadj Malick Diop lii ma lay wax ni bu ko déggee dina leen wax ni leen lii Babacar wax na dëgg maa ko jël man ñoo ñëw fii taxaw. ma won ko situation yi lu mu demee bëgg na liggéey ñi mu àndal ñi nga xamee ne xel ni tey jii buñ la daree munul doo ñoom ñoo lay orienté ci loo xamee ne xel ni dara du ci dëgg dañ ko waroon a orienté ci dëgg ba ndax parce que buñ ko orienté ci dëgg ba seeni i poste fees moo tax duñ ko orienté ci dëgg nañ ko orienté ci dëkk man damaa bëgg nit ki même booy nekkee ak moom da ngaa bëgg Tivaouane doomu Tivaouane la dama koy orienté ci li nga xam ne moom la waa Tivaouane moom. ndax parce que boo demee tey jii bu ma la yóbbu woon ci kër am lu la naqari ndax parce que xet gi day dem ba dugg ci biir kër gi li may wax dama koy wax ci kaw à haute voix. bétuwaar bi bu ñu bëggee bétuwaar bi normal dañ koy defar ak doom maire yi defaruñ fi dara bu la bu la boo demee ba guddi ay vingt une heures vingt deux heures doo gis lumière xam nga abattoir bi buñ ko defoon lañ leen wax kon kër gi nit du ko xam abattoir boo ko defaree liñ la wax tiwa du ko xam boo ma takkoon man ak Bombardier ak Tyson ak Yékini ak ñoom ñëpp wala ñu takkoon tugal leen ñu ci tiwo tiwo sept tonnes cinq yi di fi jàll boo ko kon du ko xam ndax parce que ndox mi day jàll dem sa bride bi day nekk benn place nit ñi di ko tibb wante defuñu loolu borom tool yi dañuy ñëw fii di tibb sa bride bi dañuy ñëw fii di tibb sa bride bi wante deretu luñ lay wax ku la koy wax man maa la koy wax wax bu leer nañ deretu rendi ci boppam moo xeeñ ku la wax ni la deretu rendi xeeñul day nax day wax ku ko day wax lu ko neex li ma lay wax ci kaw laa la koy wax deretu rendi ci boppam moo xeeñ jur bi mala bi ngay rendi deretam dafa xeeñ ndax parce que boo ko bàyyee mu fanaan wala mu yend boo ko laalee mu am sax mu nëb. nañu bàyyi deretu rendi bi laa wax ni moom moom la ñu waroon a defal puisard yoo xam ne ni xel ni day dem buñ ko bëggee vider vider ko ndax parce que day nekk ndox kese wante loo xam ne xel ni defoo ko indi woo ko defoo loolu defoo tiwo yu mag nan nga koy defaree ay tiwo PVC moo nekk fii nga fii ñu doon vider léegi tiwo PVC yoo xam ne xel ni laa la wax bu ma ngëbee sama kurpeñ def ko ci mu fat kopp kafe yi boo ko ci defee mu fat léegi kon kooku nan lay demee loolu la mairie bi day nekk ñuy wax ñu naan bétuwaar bi bétuwaar bi bétuwaar bi déedéet abattoir bi bu dee dañoo bëgg a defar abattoir dañuy ñëw ànd ak boucher nda parce que sale machine dafa am foo xamee ne xel ni fa ngay dugal nga xar ko machine du semmiñ du leneen semmiñ du fa jub ñuy defaree bloc opération noonu la ñuy defaree sale machine sale bi nga xamee ne xel ni si moo fa ne si bi électrique la mooy xar nag wante fii amul si électrique. amul lenn lu dul force des bras boo amul force loxo liggéeyoo. li ma la wax bétuwaar bi amul lumière benn primo boo ko bëggee dégg amul lumière demal abattoiru Thiès bu ñuy liggéey guddi lumière la am ay projecteur ñoo fay tàkk demal abattoiru Thiali ay ay projecteur ñoo fay tàkk mante nag yi ci biir abattoir bi la ñuy nekk. waaw lan moo tax bétuwaar Tiwaawan amul amul amul amul abatu amul amul amul foo xam ne xel ni fa la ñuy def nag abatuwaar Tiwaawan amu ko te bu ñu jógee di wax ne abattoir bi defar nañu abattoir defaruñu abattoir volaille lañ nañu bàyyi fu ñuy def xar yi ak nag yi lañ fa defar foo xam ni dañ ko fay denc nag yi day am mandarga kenn ku nekk boucher bu ne dafa am mandargaam. boo xamee ne xel moom lañ lay jox boo waree liggéey sa nag mu ñu dem déel ko dugal ko ci biir salle bi liggéey ko bu waree dugg chambre froide ñu dugal ko chambre froide bu waree génn ñu génneel la ko machine moo koy génne doo ko laal niñ ko wekkee noonu lay dowee ci machine yi ba génn ci biti bu génnee ci biti nga koy soog di chargé ci oto yi amul leneen nañu bàyyi di wax ni defar nañ abattoir abattoir du noonu. abattoir du noonu abattoir ay puisard lay am ma waxaat la ko tiwo yi muy am mooy ko tiwo sept tonnes cinq yi nga xam ne lu ci jàll day dem lu ci tegu day dem yoonam abattoir boo koy abattoir boo ko buggee amul boucher buy xëy te ni lay sol boucher même bu dee xëy six heures si ngoon la ñuy dugg abattoir ci Thiès demal six heures si ngoon lañuy dugg am na heure boo xam ne bu xasee jot kenn dutul liggéey nañu bàyyi di politique abattoir abattoir abattoir ana abattoir bu ñu defar abattoir boo ko abattoir boo ko buggee amul boucher buy xëy te ni lay sol boucher même bu dee xëy 6 heures si ngoon la ñuy dugg abattoir ci Thiès demal 6 heures si ngoon la ñuy dugg am na heure boo xam ne bu xasee jot kenn dutul liggéey nañu bàyyi di politique abattoir abattoir abattoir ana abattoir bu ñu defar. fee volaille lañ fa defar ak fi vétérinaire yi dëkk. modern lañ la wax abattoir modern abattoir moderne da ngay sol ay bot ngay sol blouse ngay am tenue complet mbubu ak tubay ak mbaxana mbubu ak tubay ak mbaxana ngay am ak dal ak ay bot mom ngay sol ay bot ngay sol exiger mbaxana mi du deñ tànk waccio tànk genno sal bi nga xamene xel ni abattre sal bi tànk genno ko amo droit sumi mbubbi wàcc rek mooy tax nga summi mbubb yi nañu bàyyi loolu fii amul loolu fii boo jëndul say bot doo sol fii boo jëndul ay bot doo ko sol yow yaay jënd say bot sama kaddu gu mujj mooy ka nañu bàyyi di politiquer bétuwaar bi fu ñuy rendee ko fees amul politique te ñi nga ameel dëkkandoo yi àq dëkkandoo yi ñi ngi leen ameel àq àq lañu leen ameel ndax parce que abattoir bi boo ko laalee day xeeñ xunn day dem ci dëkkandoo yi àq la dëkkandoo yi àq la nañuy wax lu nga xam ni xel ni moo nekk dëkkandoo yi àq la nañu nañu wax ni nañu nag jox dëkkandoo yi lañu moom dëkkandoo yi lañ leen jox li ñu moom mooy que bu dee maire bi bëgg na liggéey na ñëw toog ak boucher yi day boucher boppam moom mooy boucher amul interprète amul dara mooy boucher boppam ñëw toog. ñu wax ko li nga xam ne noonu lañ bëggee ñu liggéey ko abattoir moderne ndax parce que abattoir bi mu ngi xeeñ day dem ci kër jàmbur yi dañuy taal seen i cuuraay sax bu day xeeñ ba ci seen biir néeg yi jaaduwul jaaduwul abattoir ku ko bëgg abattoir bi Moustapha Niang moo ko fi tabaxoon El Hadj Malick Diop tabaxu ko fi Moustapha Niang moo ko fi tabaxoon yàlla na ko yàlla yërëm te xeeñu moo ko fi tabaxoon keneen amul leneen keneen leneen defuñu ko fi Moustapha Niang moo ko fi tabaxoon. bii mooy ñeenteelu betuwaaru Tiwaawan bii mooy ñeenteelu betuwaaru waaw yal nañu yàlla may kooru jàmm ñu jeexal ko ci jàmm ak salaam ak mbooloom julit yéen ñun ñëpp ñu waa